assalamu alaikum baningol mbal konto nal to nal konto nga alal badim male muhammad keba jata aning ha ah, namu badim ma mesir ten mi mu mariam siseti kom dalta ka ya nyamen rom katiara si review nyin kamanali rom a ah, bidum anara ah, naraka min kajar rom hani ka sayang albu hani fa sayang albu mol jibe ka nga gambian talents tv le bidum nara dum kami kaja kajar dum a wolem ti ni modi memo abdullahi bati abdu abdullahi jamanti koyo dabo demba njayi aning alaji kani mi yalon ko wolle sida nun a ah, nyin ah, last week o nyin sayin dum ah, jande bal na kacha kon rom mbabla la mbari maya fam introduce asalaamaaleykum askan wi yéen ñu ne ne nekk di seetaan fii si Gambian Talents TV ñu leen di wax a ah bismillah rek si seen beneen programme yi TRRC review bi ñu leen di baaxoo di amal fii si Gambian Talents TV si am samedi bu nekk tey nag ah, ñëpp xam nañ ne tey mooy the last week of the second season bi ah, sittings bu gaay depuis bu gaay wàññeekuwaatee maanaam buñ delluwaatee si seen TRRC bi xamoon nañ ne den defoon seen first TRRC si um, settings bi ñu ngi dem for break am um, then ñu ñëwaat tamit for another um, another one léegi ab this uh, Thursday bu romani la seen la gaay ci yaat soo ñu ne dañoo ñëwaat fii on the 11 of March la gaay di dooraat liggéey ñu ñëwal leen fii nag pour wax leen lépp li nga xamante ne moom ngeen bugg a xam si loolu euh, mooy di TRRC bi maanaam di Truth Reconciliation and Reparation Commission waaye nag euh, toppale ñu ne ba si kanam ñu xuus euh, si biir nañu waxal leen ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo ñëw si TRRC boobu noonu ak luñ fa neetal yépp Mohamed. waaw Mariam Abdou Karim Bah moo ñëwoon si monde bi. Euh, kay Abdou Karim Ba moo ñëw si monde bi nag euh, testify waaye moom fekkee moom mu ngi woon Washington Washington State moom mu ngi America waaye gars dañ waaye gars dañ gars dañ euh, wax si through Skype la ngay waxee through Skype nag ah, dañ amoon some technical issue yi nga xamante ne dañ amoon xawoon am problème si loolu noonu nag Ah, mu waral nag ba gars yi ñoo continuer ba si kanam dañ dañ wax touti lek si kanam ñoo continuer parce que dafa am problème pour connection bi gars mu nam connection bi gars Washington State ak Gambia fii but after si bu bu bu mu commencé baax rek euh nga xamantene mom moy mooy Abdoulaye Ba commencé na wax mu ne ah, mom bokon na si ñu nga xamantene saaf nañ ci nguuri jawara bi mu ne mom time boobu noonu fekke bu mu on soldier bi mu ngi ñuko enroll on si euh, soldier gambian gendarmerie bi ci 1992 bu joggé fofu foofu gañu ko promo ñi def ko private soldier bu nekkon private soldier after then that from sergeant sergeant to lance corporal then from that mu ngi nekkon di liggéey ak nga xamante ne moom jawar mu nekk nak nga xamante ne daf ko daan tiil bagage ami fu mu doon dem tukki rek daf doon ànd ak mu explain li nga xamante ne moom mooy 1994 euh, coup d' état bi mu xappu noonu fekke moom mu fuufu woon mu ngi euh, mu ngi nekkoon ak nga xamante ne moom mooy jawar mu nekkoon suñu former président bi euh, mu ne nag début ni bu mu doon xappun mu ne gars yi jégi-jégi rek dégg ay mouvement mu ngi ñëw dégga si radio bi mu dafa déggaat si radio bi ne mouvement mu ngi ñëw boori Banjul so moom bu mu déggee loolu noonu rek mu dem mu alaat nga xamante ne moom mooy président bi jawar. bon jawara nag moom waxoon na wax na ko ne comme moom yëg na lu yëg xew su afta den si la gars yi collecte seen bagage yi jël seen matériel yi eh, fekkee américain yi seen navy yi bi tamit eh, navy yi ñëw nañ pour comme intervenir bon bu ñëwee ñoom gars rek ñëw ñu wax ak nga xamante ne moom mooy président bi jawara ñu ne ko ne xam nga time bi fii fu mu nekk nii légui lu ñoo def moy dañoo dem rek ñu costé ci boori geej bi lu mu ndi xapun rek nga am na gis ñu dañu xam mu ne si la jël mom ki abdou karim abdou karim bah mu ne mom mo japon bagage yi jawara yi gaay génn fi dem costé ci nga xamantene mom moy port si banjul bi fofu la gay sisu nak eh, ñu nekk di xaar waye mu ne so taxawé ci port bi da nga dee mu na gis through state house képp nga xamantene mu ngi ñoo pour duga mu ne gaay jigi jigi gis ah, ñi nga xamantene ñom ñoo move pour duga ci state house bi gaay ngee ñoo duga gaay bu ndugé rek nga hamne nak legi ñom fuñu nekk non sefatu legi nak gars si lañ mu faaw mu tout ci gënaaw gannaaw ñu ñu taxaw si geej bi fofu non ñu taxaw di haramu di seet affaire bi nakala mo mel waye bu gars toge ba si yàgg ñu xam nak ñi ñii legi jël lañ bu gañu dañ bu a ñew jël te suñu fi taxawé gars mu nañu fay ñu proceed cross gauge bi dem fu nga mom moy dakar bu Dakar. Abdou Karim Ba mu ne mu si dafa bena bes dem si next day bi. Eh, mo dafa ñib si mu ne because mom mu tas foofu noonu dafa ñib si waaye bu balaa ñib si nag dafa metti yoon lool ci mom parce que amut doon benn bi nga xamantene ne la won la wara ñib si si la gaay si lam jaar dem si American Embassy bi ñoo ñu jokkoo li nga xamantene mom moy 5000 francs la jël mu del wat ci fi ci Gambia Mariam. ah waaw Mouhamed Ibari set na toroba waaw ba léegi nag ah, balaa maa dem di waxaa suma mbokki Haalpulaar yi man tam ma faram-fàcceel gars yi tuuti li nga xamante ne am jot naa ko am forsi kooku noonu i kaadoom bi ah, kooku nag dafa explain noonu ba mu wax about ah, November 11 mm. mooy ku buggaay naroon a jël def ko mooy because of junta si comme kontaanuñ woon ñoom mm. si nguur gi nu mu nekkoon di doxee maanaam depuis junta si ñu jël lii di dëkk moom nag si i kaalum nag wax ne moom bokkoon na si ñi nga xamante ne mooy ñoo sababoon loolu li nga xamante ne nag mooy naan mooy ah, eleven novembre 11 lu amoon fii ñëpp xamoon ne 11 um, of novembre 1994 nekkoon na li nga xamante fa xumoon si dëkkat bi dooñu ñu ngi yoon ba dañ daan dégga like man yàgg naa dégga 19 1994 novembre 11 dafa xumboon mooy ñu bëri si lañ faa ñaakaale seen bakken ñu bëri ñoom dot faal ak yeneen ak yeneen foofu lañ leen jël téye la ñoom faafa ñang understand nga ñoom Basirou Baro ñëpp foofu lañ bokkoon soo mun na mu doon explain ba mu ne moom ah bokk na si ñoom mu ma docteur Biné Minteh mi nga xamante ni oo nañ ko ñaari yoon si commission bi mooy force dañ ko ooyoon pour mu wax bi second ñu oo ko pour mu wax yëf li nga xamante ne mooy ah, novembre 11 lu xapp noonu so Babou ah, Baboucar Ba nag moom ah, si i kàddu na gaaral na ne moom mu ne like um, gars yi dañ pare woon coup d'état because of lu nekkoon di dem fii comme jaaduwut like dëkk bi moom uh, nuñ ko xamee woon si time Jawara nekkut demee noonu mu ne léegi bu gars yi uh, pare lee loolu yi fi coup d'état bi gaa yi def seen everything mu ne 9 of November 9 10 11 mu war a nekk seen coup d'état bi gars dem def everything so day was a day bi nga xamante ne dafa waroon a off comme uh, dafa fekk novembre 11 mu ngi off so depuis uh, buñ ko oy ñu ne ko da nga am off te ñoom gars yi dañ plan ba pare gars yi dañ war a def coup d'état mu ne gars yi ne léegi baalal leen ma rek ma off on the 12 gis fekk coup d'état bi romb na understand so uh, novembre 11 nangu ta off so si la nekk duuti mu ne fekk loolu yëpp gars ñu ngi ah, ñu ngi plan loolu mu ne si la si guddi bi gars yi ñu oo gars yi ne gars ne léegi mun nañoo dem pour ngeen attaque understand buñ ne waxee ne ñoom ñu ngi woon ak groupe bu bëri soo gars yi dañ def seen everything gaa yi def comme ñaari soje yi nga xamante ne kii dafaa dem si këri Edward kii nii dafaa dem si këri Yankuba kii dafaa si këri Sadibou Haidara waaw dañ ko séddale kii dafaa dem si Sadibou Haidara kii dafaa dem si palais bi comme ni ñu ko defee si am state house pour ñu capture foofu noonu understand but nuñ ko defee da nga comme xam nga ne junta si they were very wise like dañ muusoon understand mu ne loolu na far gars yi seen unfortunately seen loolu noonu yëpp tax de gars yi dañ ko gars yi mujjee koo yëg understand waaye comme pare woon nañ defar nañ everything pour ñoom kay um, waaye naa rek comme luñ dee wax jàmm fa am si coup am ku rochee mu ne wax ko gars mu ne moo ne ñu ngi ñëw chute pour ñëw def everything moom mu ngi woon si boori state house bi waaye ñu ne ñu war dem fi la yëpp caption nañ kii moo war a dem fi kii moo war a dem fi mu ne léegi su bu gaa yi ñëwee nag ba ñu ne ñu ngee ñoo dem mu dégg nag Sadibou kii nii Sana Sabally di yuuxu di yuuxu di lii mu dégg voice am bi si la xam ne gars yi seen ah, lii nga xamante ne mooy coup d'état bu ñu waroon na def novembre 11 comme raté na ba pare si leen leen tiyee nag dafa am ñu fa téye waaye moom bokkut na ko waaye dafa ñu xam moom si la jaarale mu daw. waaye dafa am ñoo xamante ne dañ leen téye amul foofu ñoom Dot Fall ñoom Fafa Niang ba mu doon expliqué ba Dot Dot Fall sa comme baatam bi like comme foofu la demee ak yooyu noon ba pare balaa ñëwaat si kooku di ah, balaa ñuy demaat si beneen witness la man faram fàccee suma mbokki poli balaa ñu maa mere bi because dafay ñu start maa si olof bi rek. assalamualeykum on jarama musidɗo am fulɓe ono wonɗumen endade ɗo gamin talents tv ko min ɓiɗɗo moɗo noon a ah, mariam sisé mais arani on ɗo kadi o oh, am bandirawo mo karani mouhamed ah, keba diata mais ari addana ɗo ɗum ko andanta o trc mo andanta ko on woni e e memminde saare nden o woni trc am to reconciliation and reparation commission ɓe andanta noon ɓe jooɗi ɗo pour tumɓe hanna yimɓe ko heewno ɗo time yaya jaami manam gila um, gila 1994 ha e 2017 um, ko heewno ɗo ko joni noon ɓe arɓe o commission noon uh, tawama o wiiteɗo baboucar ba abdoulaye koyo dabo e o deman dia e ala jikkinte mo andanta kanko wonno foma um, ko foma uh, militaire o wonno andanta kanko wonno mo andanta kanko warata yimɓe ɓe kanko noon sakkiti arɗe o tiarar si joni noon komi woni e haale o abdou ba mo andanta kanko kadi ko ministére o wonno o ari noon mo simtana yimɓe o novembre eleven coup d' état hombo yimɓe nanano ɗo fof kanko mo bokkuno hen kanko e dot fa e, e, e a basirou baro e o doctabine minte ɓe kamɓe fof ɓe bokkuno ɗo ha pari mo simta ñande ɓe andanta ɓe parino coup d' état ɗum woni on the 9 of 11 on the 9 of um, novembre 1994 o wi am o yahanono ɓe pari koɓe parta kon ha ɓe wi ɓe ara ɓe waɗa am ɓe waɗa on coup d' état ɓe haali homo yatato galle sana sabali homo yatato salibo haydara e edward singate e o woni am yankuba touré e e chairman maɓɓe no ɓe andinoma président leydi yaya jame wonoɗo state house ha pari noon o wi kono aftaɓe fof ɓe anndo e dil maɓɓe on ala ko woni sona am sana sabali no luuka no wiyaɓe yoɓe warɓe yoɓe warɓe walla yoɓe nangguɓe ɗum noon andanta wonino ko hawni kono ha yeeso ɗen ɓe hannayon o am abdou abdoulaye koyo dabo am Demba Ndiaye e Alaji Kinte ɓen kadi koɓe ari e koɓe haali e yesso o commission a woto mbaarigol comme dalta ka kaali ñamen ron ka tiyarar si kibarol mutale ka jajangale pour mo be sa faham isa lom ñing ko won min betama kan pour dalilo min yatinal comme ka fo ni ñing kamol la pour mol mi yalon ko e mangangale kam moy bake pour wol fanan sa faham ben mum fokan komando rong ah, a wolem ñi mumu abdou karim bati abdou karim badu ma khatel ma fanan dabe mol kon ne miyalon ko wole ah, jawara la man sakunda ñim fanan eh, dogule ako wato min natenin jawara be non dogu wala wato ate dum ate ate ate le ka jawara ma ko eh, comme na la fakala bagasol samba ka la bagasol samba dawada tumala min na yalon ko wolen a ah, 1994 ñi kudeta ñim bekela ko wato la ɗum jawara ñi aya kalamtale kato ate janda ba bira ya kalamta ton atata ka fo jawaray e bira atata fo jawaray e ɗum jawara kaya ko a ŋo kuwo ñin kalamtale wato fana ya tara ko uh, american navy yol fana nata nun je sita nun inen jawara ka negotiate pour jawara ye dula bula ka ɗon dula mantara sefri sila wato le inata ka kuluŋo ñin denden di ports min mu banjulti ibiriye kuluŋo denden di nata jawara kamma ate abdou karim bako atele watu atele bagasu ñil be muta ye bula moto kono ata afta itata itata port bulata bato ñin kono bare bile butata fanan ibe dendere ne be bato ibe bato ro la jumañol le be dunna euh, state house bi le bato ro ga ko watu american navy ñi navy ñi ye longoro sotole i watu le longoro ñi ta ye jibero ke aje mol be dun kan a state house silang biri sila je famete alon ko jang sen kuol man koy inata bato ñi ñorendi itata fo damende alon ko wolen dakar fi be frara dakar ateni ateni kopul ndaw iye laje tili kilen dorong ati asamo tili asa asamo nyen dong ila faka sena bare biri la faka sena ko le manki imon do soro watu le tata amerika ne emba e embassy nyen dong mbe senegal je biri da embassy nyen to wolle 5000 francs le dila mum 5000 sefa sefa kodoti wolle wolle dila ye passo kena wala biri setana ako biri setana dum ati tata fara fenyale wodumo ñiŋ keta nuŋ odi 26 lati ti waato dumu abdoulaye fall bi ka fo miŋ ko dot fall wole le nuŋ je miŋ mu aka nata naata je bira futata afta a kaye ko kaye ko le naata pour ŋa doo ko ke kota le bira wo faye rong dot fall i ñaa ñiniŋ ka kaye ko muna nga ye sehu sabali bula a kanata a kaye ko e eh, ŋa na doo ke katum naa mera dooku la kendo miŋ ye a loŋ ko aniŋ a naa kafuñolu be dooku wala ñanta wo ke la ka tumala min na uh, kuwol ɓe duurin wato le ñanta kela ñata ko ñatan ko kanani bira ko kumo jaabe ji jaabe ron dat fal mi mo abdoulaye fal de ka kumani walla ako o kumo ñimman na diyatulo e o kumo ñimman na diyatulo e ñamen ron inata muta ate fon abdou abdou karim ba ya sorom fo one weeks biri ya soron fo one week inata bula bare biri ya bula fana ye ye ye ye ye kidol diyalal bare kidol ñimman soto ti goy man lara hani sen ate ko kodum man na ate fana ate fana nyafa kadum e be kido dila mola nyaali le man keso dia andu momo mi mi yalon ko iba kis kis la rong ikajele wol kido ke keso ka tare bulle kido ke tare bulle keso ka tare bulu o ko nyi man na afta ta kuwa fada ate fana kon nag Mariam dañoo demaat si beneen bi kii keneen ki nga xamante ne Abdoulaye Demaat Koyo Daaw Abdoulaye Diamanti askan wi gis ngeen nag suma naataango lu mu leen waxal noonu si um, soose bu set bi ba léegi nag ñu si kooku nga xamante ne acting clerk la woon di Abdoulaye uh, J Daabo mi nga xamante ne moom itamit wuy si na si boobu àttee ñu gën koo xamee si TRRC bi moom nag Mouhamed euh, mu expliqué li nga xamante ne dafa doy waar ba pare dafa yow dafa daw yaram torop because i kaadum nag euh, maanu liiga mu ngi explain mu ne moom euh, moom mooy moom itamit xam nga action clerk la woon mm-hmm. ba day woosee di dafa am ko ñëw jël si mu ne pour gars yi génn understand waaye mu ne ak ah, moom according to moom moom mu ne moom amutoon na benn colonel like ñii coup d'état la gars yi dem def wala something understand so buñ ko ñëwee jël si kooku dafa ñëw sign a weapon mu ne ko ne yow how comes maa ngi ànd ak yow nga sign a weapon a weapon so which means man du dem rek kooku mu ne ko xam nga yéen jaarakundaay comme soose yi ngay tooñante mm-hmm. ma ne ko xam nga da ngeen after mu ne ko no problem you can sign mu ne buñ doon dem rek nekk de coup d'état bi la soo mu gis comme chutan mooy exactly thank you so mm-hmm. Mm-hmm. mu ne moom na kon unfortunately comme nu ko no waxee lu sen lu gay planoon yëpp mu fail bu mu failee nag ñoom saraan comme junta bi ñoom ñu ñëw understand mu ne ñooñu bu mu ñëw boobu ñu boobu comme ñooñu noonu nag bu ñu ñëw tasee ak gaay ñu stana di leen toojoo ñu téye leen ñoom ñëpp mu ne moom mu ngi fa woon moom Jot Faal Basiru Baro ñoom ñoo fa nekkoon waaw ak ak Faafa ak Faafa ñaan ñoom ñoo fa nekkoon so mu ne moom moom lu mu réalise mooy buñ ko dóoree after si like dafa mel ne dafa hum but like mun sa uh, faram-fàcce ne kii ak kii ñoom ñoo ma doon dóor waaye kal ñan la mun a identifier wala ñan la gis foofu noonu mooy Peter ak Edward mu ne after si lañ ko dóor mu ne like si la Edward comme téye baaramaam bi xëcc ko nii xëcc ko xëcc ko ba after mu dóor ko mu jël piste bi gars di ko dóor after ñu jël ko mu ne ma yëgu daal dañ ko jël saani ko si biir truck bi understand mu ne buñ ko sànnee si biir truck bi nag si lañ jël kooku di Basiru Baro tamit ñu dóor ko dóor ko benn uh, baatam bi dafa mel lu dama mu tëdda fii understand mu ne kooku tamit kooku euh, ñu gën koo xamee si euh, Dot Fall Dot Fall sorry Dot Fall la baatam bi euh, amoon problème moom la baatam bi amoon problème soo dafa am si koo xamante ne ñoom fii yee moo génn fii lii ya ngi néewi like fii comme loolu yéeye mu moo génn because of dóor bi mu ko doon dóor pistol bi comme si fuñ dee téye kooku mooy Dot Fall kooku mooy Dot Fall ok kooku lañ dóor ba ñu yàq ak ŋaam bi waaw bi lañ yàq exact ñu yàq ak ŋaam bi ŋaamam bi comme du wax su ibi gémmiñam bi pour mu wax problème la. waaw mm-hmm. after nag mu ne bu ñu fa jógee mu ngi dégg like uh, comme Sana Sabally. Mm-hmm. Sana moo doon wax gaa yi ne xam ma pour ñu chute. mooy pour ñu léegi Sana mu ne leen déedéet bul bu leen sut so leen sutee pour gars yi ni dafa over cheap. Mm-hmm. dañoo rëggee ñëpp ñu gis ñu jël fa comme exemple understand nga mu ne mu ne moom after loolu na si leen leen jël ñu yóbbu leen Mile Two Mohamed yow comme um, bu ñu la yóbbu Mile Two tamit comme lu ñu fa go through moo gën a bon. dan luñ ah, li nga xamante ne loolu lañ jànku wanteel foofu noonu ba kii ñu dafa am ku xamante sax moo fa gaañuwaale buñ lay yóbboo mile two ah, mbaringol ah, ñi moom yalanko e ka foole ko eh, abdoulaye koyo dawo e ka foatele ko the luckiest man ay ka kumandi wolla e ka fay ka foole ko atele mu sima ti dawo sima katum ate ya groupe kono mo jamal le bi jemi yalanko ye faale bare ate tumala min na wado wat inata te kan roy buka ke fano malo munen problem wati ay wala ne ka kuma de dum loki yes man uh, abdullahi ko uh, jamanti ko yo uh, dabo dum ko ate tumala min na tenin kelef jame bitakan dum wate ka bonan uh, fajara barracks ikata yindum barracks perkata meeting o aten birita dum uh, fo fotata yi uh, uh, jandi bita inyata ka elef jame dum ay kidota amoy nyintole barate man kido sotanum sila ko elef jame ko ite be kido tala no nyaal len taman kido ta ka andun kata dula to mi yalan ko ite fon yal ne ko fo je ko ita fa man ko sila ndum ak wo kay ko fo ite do bi la fa fisal lal bang akay ko yalla to yalla jaram ko akay ko fisal tende am fana la fa le na kido so dum fana wo tambul akay ko ha wo to isi tata no wadula la fana tata ka sain ay la kido sign tata hi la silo tilim pour kata uh, eh, yindum barracks pour kata meeting wani biri taram eh, eh, jandi ba futala yindum barracks eh, damen yalon ko airport mafon ani inyaaje a uh, sojerol be bundrola memu edwa singare sana sabali ni la mul ibe laari dolbe laari dolbe bundrola drom elef jame ko ye moto ye moto londi elef jame borta a jompita airport ko mala ya bayni ya sud ay moy fang edwa singata ka fuko don let him escape alkana bulay ay kana biri biri wo foron ate fanan aya eh, jakatale aka malo mum be kere ndu silang aya eh, je elef jame ako elef jame mu smart soldier tunu after elef jame escape tam imanna e elef jame mu dano bari yate dum taraje biri ya taraje e singate ya tulo bum bari ya tulo bum commence ta ka lipa ya lipan lipan ya lipan lipan wato de nata ya muta ya samba yindu barracks ya soronje biri ya soronje dum ako mo jamal ya tara selo hono jele mi yalon ko wol fanan ibe wol fanan tocho kan anata ka ñimmu je mi basiru baroti anata ka ñim fanan je mi mu ñinti eh, eh, eh, mafuji sonko mafuji sonko dot ah, fañol ako anya je wol be mu da ye wol be li bala ye wol be baro balo do le do balo baramata dot fal fa ngate ak ala yin kara ya li pale fam ka diamuno akara ada ako be laren tenne abu ka diamuno bake basiru baro nyol be ye wol mu fana ye wol be fana tilimbaliya Euh, mbaɗigol euh, ñin kuul be mi yalan ko mba explain kana abe ah, be hapon de dulal to mi yalan ko wolem yundum barracks ni man futale fulo fajara barracks mbokay nak ah, comme euh, buga joge fi nga xamante ne moom mooy yundum barracks ñu génne leen foofu noonu yóbbu leen fajara barracks ñu pareet leen nag taxawal leen ku nekk comme ñi nga xamante ne comme gars ñu ngi ñëw sing national anthem bi waaye ñoom ñu ngi am seen anthem bu nga xamante ne boobu la gars yi ñu taxawloo gaay bi ñu rang gaay nga xamante ne moom mooy Basirou baroo nekkoon na fa euh, lieutenant Dot Fall mu ngi fa moom Abdou Karim Ba mu ne mu ngi fa euh, Mahfoudji Sonko mu fa ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu bëri ñoom ñu bëri la woon ñu commencé la ja Sana Sabali Edward Singate ñëpp ñu ngi fa woon ñoom ñoo nekkoon ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen waroon a execute ñu teg la taawal leen si fil bi nag ñu ne gaa ñu sing seen antenne boobu noonu buñ singee ba pare Sana Sabally mu ne gaa yi faaya ñu commencé faaya ñan mooy ñu waaw mooy ñu ma ñu ma onoonu gaa yi rangal gaa ñu sut gaa yi fi nga xamante ne sa nit ñoo fa deewam mm-hmm. ñeneen ñu escape ma Mouhamed dogguma la nag nga wax nag lu am am solo waaye balaa loolu rek ma ñëw si ki nga xamante ne Demba Ndiaye la kooku Mouhamed mi nga xamante ne kooku dafa liggéeyaa ab Jawara mu ñëw mu liggéeyaa ak Yaya Jammeh ba pare kooku nag ah, ah, Demba Ndiaye boobu moom mooy di very one ku jël ah, kooku di Koro Ceesay moom moo introduce Koro Ceesay with Yaya Jammeh mu ngi doon expliqué mu ne moom moom séeréer la Demba Ndiaye Demba Ndiaye mu comme liggéey ak moom as a senior um, la fa nekkoon sorry permanent secretary la woon foofu mu ne moom ak Yaya Jammeh comme gars ñu ngi juboo caaxaan rek moo dee nekk seen diggante mu ne waaye ba after si si la xam ne like ah, moom si lu mu dugg sax comme ah, nekk lu jaar yoon waaye ba after lead council bi sax Essa Faye daf ko laajte lu tax yow boo gisee Yaya Jammeh di xaali yoon. retire loo mu ne ko ne déedéet comme du moom du mun a retire at that time but mooy. because xam na ne Yaya Jammeh comme ñu nekk di àndal mooy loolu si la jël nag kooku di Koro Ceesay mu ñëw introduce ko ak Yaya Jammeh pour kooku nu mu mun a lead Yaya Jammeh to the right ah, direction mu ne soo Koro bu mu fa ñëwee nag. kuro was close to yaya jame mu ngi liggéey yaya jame di def ko defal lu nekk comme lu bax rek la ko di digal waye ki di edward singate dafa ko nit ko xamante dafa fiir comme du dee bëgg ken mu dem close to yaya jame honestement so mu ne da yaa woosee sax moy comme sana sabali mu ne sana sabali ak ñoo aftasi sana ak saalibu sa ñom ñoo gëna close Guys edward singate ah, mu comme mom mu si jame so mu modé lu nekk mu modé wax ko ya jame so du dee bëgg kenn close to yaay jame mu ne ba Daya Wose de moom mu ngi toog rek moom lu mu dégg mooy kii dafa dem a Yaya Jammeh moo ko office office a fekkee Edward rek ak Yaya Jammeh ñoo fa nekk Edward Yaya Jammeh mu ne ko ne bi nga xamante any uh, council member bu fi ñëw ñu shoot ko. mu mu mu yónni mu moom moom kan moo. moo yónni Demba honnêtement bu ñu ko waxee loolu soo waaye gis na Edouard waaye Edouard defu dara waxu dara waaye Edouard ak yaay ji ma si office bi honnêtement nga soo bu loolu amee mu ne mu tax mu mu sos waaye dara soo si la dem nga wax gars ne uh, waaye mu waxu gars comme li ko yaay ji ma wax daal dafa wax uh, ñoom soldats yi ne mu leen uh, président bi ku fi wax leen ne comme council yu fi ñëw council bu fi ñëw after wax ko ne président bi mu ne du la mun a gis mm. du la mun a gis after six soo mu bu loolu amee nag moom after si def de nekk di xool Edward ak Yaya mu ne bee moom day weesoo dee tam mu toog rek Yaya Jammeh mu jox ko xar mu ne ko ne yóbbu lal yóbbu ko si këri Sana ndekete Sana jabaram dafa am doom ëllëg la ngénte sax xamutoo mu ne xamul sax actually kan moo kañ moo nekkoon ngénte bi mu ne soo bu loolu amee mu dégga mu dégg Edward mu wax yaay ne saa why don't we do it right now English la ko wax so ah, yaay mu tontu ko si olof mu ne ko nu xaaral bi after ngénte bi ndekete gars yi ñu ngi plan pour téye kooku di Sana Sabally. ok Sana Sabally lañ bëggoon na téye. fekkee moom jabaram mu ngi wasinu. jabaram mu ngi wasinu si bési ngénte bi. Mm-hmm. Edouard dafa bëgg a gars yi téye kooku noonu si bési ngénte bi. understand mm-hmm. mu ne bu lu amee na mu ne bu loolu amee soo moom mu jaxe waaye mënut a understand mu ne after ngénte bi rek Sana mu ñëw ak bu rek mm-hmm. foofu lañ leen téye ñu capture after ngénte after ngénte bi just after ngénte bi ñooñu buñ delluwaatee rek se leen ñu kap ñu ñu ñu tiyee gaay buñ tiyee gaay ñu ne coocoo amul lu gaay go through ba kii sax saadi bi dafa mujjee dee ba pare ñu ne kooku dafa am préso préso moo ko rey te moom ah, moom di Demba Demba Ndiaye mu ne moom kooku noonu laay daf ko yaagaa xam comme gars yi kii def day dem indu si kër gi kii dem indu si kër gi mu ne mosut a xam ne kooku noonu dafa am feebar boobu mu understand mu ne soo bu mu déggee loolu moom he was like wondering lan moo tax loolu noonu am ba pare tamit mu doon explain tamit kooku di koro mooy koro bi nga xamante ne was close to Yaya Jammeh amul lu mu dul defal Yaya Jammeh amul lu ko Yaya Jammeh dul defal comme mu ngi koo change from mu koo jox rek comme high high position mm-hmm. mu ne soo Yaya Jammeh fa waroon a tukki Addis Ababa la waroon a dem mu ne mu mu waree dem tukki mu gis Yaya Jammeh dafa ñëw bi egg si kaw plane bi mu waacaati mu waxaa Edward ñaari yoon soo mu ne that was abnormal it was not normal so mu ne he was wondering waaye xamut lan la boobu but moom tamit ngi woon si traite boobu comme mu a ànd bi so mu ne bu loolu amee ñoom ñu dem bu ñëwaatee rek gaañu ne ko ne Koro gaañu na waaye dafa am accident moto bi la ka on understand léegi mu ne bu ngay ñëwee moom xam na ne Koro gaañu na mu ne moom sax he was guilty because of moom moo jël Koro mu indi ko mu introduce ko hmm. mu ne loolu bu mu xampi ne so moom laaj dafa guilty but bu loolu xappu ne ba ngay ñëwaat musuta gis yaayam ibi gémmiñam mu ne where is Kuro moo xam ne xam nga loolu dafa doy waar mu ne musuta la tëlu soo mun ne mu bàyyi gaay si biir ne mu ne waxul gaay dara mu ne noonu la noonu la ba after keneen dafa am ku ko expliqué mu ne ko ne kooku dafa am cas accident ba pare kii sa loxom bi daf fa lakkaale kooku di ah, Rakki Edward bi Peter mu ne Peter loxom bi daf fa rakka daf fa lakka te bu ñëw si bi alaaji Kaañ mu ne bu loolu noonu amee mu ne moom bu loolu amee ba pare like ah, ñoom ñoom ñi ñoom ñooree kooku di Koro but loolu order la woon mu ne mu ne because moom sax xamutoon ne Koro lan la sax mu ne waaye dañ ko wax ne dafa am ministre buy ñëw fii ministre bi su ñëwee da nga koo chalut soo ko chalutee rek nga escorte ko mu dem si biir këri Edward Singate mooy kóoloo li këri sorry këri këri kii Yankuba Yankuba Touré depuis TRRC euh, TRRC bi euh, Moustad mus nga dégg ñu ne ki ki moo ko rey nu mu tuddaati kii rey na yaa ngi ko ba tuure but déema mooy first day bu ñu mentionné turam ne rey na moom dafa participer. si rëy Koro si rëy Koro Cissé. mu ne because bu bu mu egsee just egsi dañ ko dóor. mu ne gaa yi jël lu ñu dee wale ku lii génn bi xam nga kuur kuur bi ñu dóor ko ñu jël ak banta bu buñ dee toogee. Hmm. ñu dóor ko yaramam yëpp génnee deret comme cocc gars yi dóor ko dóor ko dóor ko mu ne si la kii ah, Edward Singate mu ñëw ku nekk mu jox la de something hit. ku nekk mu jox la dara something hit mu xamee loolu nag mu mun a firndeel ne like um, loolu di lu fi xewoon depuis 1994 ba 2017 mu xamee loolu nekkul li nga xamante ne dafa jaar dafa jaar yoon wala fooguma ne as a country war nañoo encourage such moo taxit comme nuñ ko dee waxee dañ ko dee faral di wax dañ koy bugg di wax every day incha allahu rabi mooy ne kam ku ñoo fal nañ taraay rek ñu uh, oytu ba pare ñu xool si ki nga xamante ne moom lañ nekk di tànn pour mu nekk suñu xamante ni mooy jiite suñu réew mi Essa Faye wax na ko let us not try to um, take the law in our hands we are not trying to do that but the issue is nañ gën a nekk di bàyyi suñu xel ba pare dee ma si ku si ku uh, testify moom mu ne he was called by uh, Yankuba Touré mu ne ko ne ndax TRRC bi dañ la oo mu ne waaw mu ne waaw suñ la ooyee bul dem kooku mu ne gay waaye nag mu ne man mu ne moom mu ngi guilty comme ku doon oncle OJ rek ma ne moom depuis mu def loolu mu ne he was guilty la he is guilty mu ne du dee mun a def dara du dee mun a nelaw du dee def ñëpp a. mu abandon moom mooy alaaji Ka. waaw mu ne moom euh, jaara fu mu dëkk nu kenn amul affaire ak moom. waaw doguma la nag ah ma ah, te yàlla yàlla bu la yàlla dog. <laughs> <laughs> ah mbooloo Mbariñol ah, benn mu fa ka njaboot wala ma ah, Mody Miang wala Demba Ndiaye di. Demba Ndiaye ɗum adde ɗum mo secrétaire général de to ɗum wato jabarala wato adde ay dow goke jabarala wato la ay dow goke a yaya jame la wato la ako wato min na ɗum be dow hola yaya jame ako wato e mu teri balti mum a katatara batel ba ñimumu edward singantati edward atay ate modi mi yalon ko kiliya bake la bu kala fe comme pour moye kala ka e kata yaya jame la ako wato la ɗum luma min na ila fakana ka sana sabali muta ya fa atenin mimu sadi haydara sana sabali woluma ba ala musoye uh, ala muso ye diŋo soto le woluŋo lem a kulliluŋo diñinti duŋ mumu sana sabali la kulliluŋo ti sila woluŋo edward duŋ edward siŋate duŋ ko yaya jamme ko a kaye ko ñin duŋ yamiranta ke la bii baŋ a fa ye english kaŋo la kaye ko yamiranta ke la bii di baŋ ala bitun duŋ yaya jamme kaye ko no abla ni kulliyo tambina yaar fay be mum fokanten nin lem pour kata ka ñimmu ares wala mumu sana sabaliti mum fana da be la council member member zol kono sila wolongo dum ay ah, sadio di sana sabali la pour ay da ala ala kulliyo nyinke birin kulliyo nyinke na pare da wato le nar dum nyabi sana sabali kam ya muda ya liba ya liba fo wato min ah, i kañanta yabula askan wi mu ngi ne dafa mel sun suñ time bi jehna way bala ñu dem na duñ fi mun a nak te li nga xamante ne di alaaji matin kooku gi nga xamante ne kooku tam ñu ne reykat la da daan rey ay nit maanaam si time Yaya Jammeh Alaaji Matin nag ñu ne at this moment mu ngi liggéey ak ah, mu ngi liggéey si government maanaam général la si ah, si armée bi loolu nag mi nga xamante ne dañ si war a def suñu gëstuwaat ba pare waaye nag dinañ mun a ah, su ñëwee testify si commission boobu dinañ leen mun a indil ah, more information or clear notification about kooku di Alaaji Kani ñu ñoom waxuñu ko de ñoo ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñoo testify foofu ñoom ñoo. balaa ñuy dem lii lañ leen amaloon nag ok. balaa ñuy dem sax Abdoulaye Abdoulaye Dabo eh, eh, Abdoulaye Dabo wax na li nga xamante ne dafa important trop. mu ne naka la ñu waxee ne lii ñu Gambia la ba pare still ñu nga xamante ne those people are working. with Jammeh still ñu ngi woo si government bi te ñu ngi leen ñu ñu ngi leen bàyyi noonu kon moom mun nga believe ne comme loolu this is new Gambia yaa ngi understand mu ne su waree lifin loolu mu ne dañ war a reformaat li nga xamante ne moom mooy. army bi army bi dañ ko war a reform. mu ne su góor yi foom dee rek gis ñu nga xamante ne ñu ñu doon rey ñoo ñëpp ñu ngi fi. like seriously. soo léegi yow naka nga waaye léegi ñett a génn nañ because Buuba génn na mooy ku dooroon j waaw Alaaji Maasin ak keneen ak keneen ak keneen. te nag kay ma wax la lii is just the starting de. Mm-hmm. because dañ ne lii one year naka two years la moo jël lii dina dem ba three years. because nit yi kay nekk te I am very sure ne and I am pretty sure ne fii half bi yëpp dañ leen di daaxa because dama déggoon ne ñu ne kii dañ ko suspend woon. mooy ku dooroon Mouhamed foog naa time dafa jeex wala ah, mbos ah, mbokk yi comme nag lii lañ leen amaloon tey si seen TRRC review bi jërë ngeen jëf ñu jaajëfal nag suñ caméra lii di bu ñaawal bi suñ ibaadu bi macha allah si rajo jërëjëf. jërëjëf.